boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo bokk yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom subhanahu wa taala mi moom lépp ku am moo la jox du jeexal dara tabe lool moom moomu mooy ki nga xam ne moo yore cëggul guyam lu ci nekk moo ko gën a xam ñépp lu ca waay xam aka néew sax moo la ko xamal jamono bu nit ki demee ba nekkatu fi mu jëlaat la mu ko xamoon la mu ko xamaloon yoraat ko ba gis ku ko soob mu joxaat ko ko tomb bi ñuy fàttalante dañ koy tënk ci ayab soroom suñu borom boobu mu wax ne li ñuy wax xikma bari na lool ay tekkiin ñiine mooy xam-xam bu am njariñ ñiine ne déedéet mooy lu ñépp maase xamandoo ka ca gën a xerañ moo ko yore suñu boroom nag ne kum ca jox dara lu néew néew jox na la loo xam ne lu mu joxut ñu bari la ndax la ca nekk la daan nag day seet ci jaamam ñi ku ko soob rek mu def ko ci moom yal nañu ci yàlla boole bu ñu ko tënkee daal jëfandikoo ko ci diine mooy koo xam ne du def dara te geesuwut lu ko ci diine wax ndax lu diine digle rek am na xekma bu ca nekk xóot xóot ab sew sew bu ca ne boo xam ne digliwu ko noonu ngir digle kese kese ndax bi suñu borom di nett li ci jaarle ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran di wax ci sayidina di wax ci luqumaan boog luqumaanul hakim nee na moom sunu borom subhanahu wa taala moo jox luqumaan xikma eh, ku suñu borom jox xikma nag jaadu na mu sant ko ca ku sant yàlla mën na koo dolli ku ne xiim ak moom it du ko waxtaane fenn it yàlla nee na du ko wañ ngi dara ndax lam yor du jeex du xaaj te it bu dul yow it ñeneen ñeneen a koy sant cant goo xam ne gi moo gën a kawe sa cant moo ko ëpp fuuf gën koo seetlu waaye bu ñu ko gënee jegeel mooy xereñe mbir mbir mu nekk xereñe ko bu dee ci ay wax am na ñu ci gën a xereñante ci jottali ko ba mu jot sëkk te du gaañ kenn am na ñu ko yàlla may waaye bu dee jëfit foo fekk ku sunu borom def ci moom xekk ma bu jëfee rek boo bu ñu ne moo ko def da nga xam ne kii ko def nii làmbutuwut ku ñu déey la ku yàlla déey la te téeñ ko moo tax la mu yendu dis ci moom waaye bokk yi xekk ma nag ba ca gën a féete kaw mooy jaam bi xam ne am na dox digganteem ak boroomam bii ko bind di ko wërsëgal di ko fi jële ëllëg di ko àtte su boobaa dana xam li mu doon moom dana xam ne njaamu sunu boroom la soo xam ne lu muy def war na caa baal xel sunu boroom waaye bokk na ca it kii xekk ma nekk ci moom tam xereña lool la muy wax walla mu di ko jëf digganteem ak sunu borom ak digganteem ak jaami sunu boroom yi mooy saa bu ñu ko tegalee yaari yëf la ci ëpp solo lay jël suñ ko nee bu mag ngay jël walla bu ndaw bu mag lay tànn ñaare suñ ko nee bu gudd wala bu gàtt ñaare ba gën a gudd lay tànn waaye su wax ju baax jotee it bu bàyyee ñépp bañ wax ba àggal lu baax moo leen di gën a baax ay wax fuuf ndax daa am yàlla def ci moom lu defut ñu ko des mu di ko sant yàlla waaye su dee lu ñuy jëfit day bokk ci ñi nga xam ne dañ naan ñoom duñ bokk soo ne ko damaa tàmbali ba am nangam bëgg kuma ma ko mottali danaan la demal ba beneen day bëgg nga ñëw rek ne ko soxla naa nangam rek mu faj ko ndax yàlla jox na ko mu di ci sant yàlla waaye saa boo saa bu demee ba ñaar nekk ci kanamam ñaar yoo xam ne yépp am njariñ danaan sefee tànn ba ci ëpp njariñ bu ñaar toogee nii ñu ne ko ñaar ñii kenn nga ciy jël day seet ka ca ëpp njariñ mu jël ko njariñ li nag waxuma alal waaye ku amoon xel ñu yar ko mu nangu te laabiir tey wan na mer te ku ko tooñ mu baal la kooku lay tànn waaye it saa bu lu ñëpp bokkee ñëpp bokk saa bu teewee nga xam ne ñëpp mën na caa jariñu ak loo xam ne moom mën na caa jëfe loo xam ne njariñul boppam dong nga cay nekk dana la fu njukk njariñul boppam seet la ñëpp mën a jariñoo mu jariñ ca nit ña waaye saabu mbir dajee it lii def ko warugar la lii kum soob def kum soob bàyyi nee na kii xikma na ci moom day def lam war a def ba noppi ba mat sëkk mu soog a tànn la nga xam ne kum neex def kum neex bàyyi te loola it kenn du ko ca man waaye saa bu yaari mbir ne kët na jonn yoo xam ne defar ko weesu na it bu ñu ko nee loo ci xam du tey mu tànn day seet ba ca gën a woyof ak yàqu nga xam ne la muy yàq moo gën a woyof mu tànn booba waaye ki xekk ma ne ci moom dëgg-dëgg mooy koo xam ni kii bu nit ñëwee na ko dama laa bëgg a laabire ngir yàlla loolu man su ko xam ci ku lay laabire ku lay digal ku lay laabire ku lay yëj ji neex naa xàmmee koo xam ne da lay labiré moom mooy koo xam ne boo waxee ba noppi boo xoolee xool doo ci gis njariñam moom daal waaye bu jariñ jotee yaa ko ciy ëpple jëlal moo tax nee nañ ki xekk ma ne ci moom ku ñëw di ko labiré du ko fasal kanamam du ko wan na it lii nga may wax dangay ngay sonn rek waaye duma ci def dara du ko tee di wax ndax kat koo xam ne labiré ko tax a jóg yeew na ak cant ndax cantu kii laa biire sant ko ca njariñ la lool ci kii muy laa waaye dana ko soññ yit saa su gisee ku mu war laa biire mu laa ko waaye bokk na ci xikma kum ne ci moom noo koy xamee mooy koo xam ne bala moo dugg ci dara dana ko xoola xool ba mu leer ko nañ su jaree jóg mu jóg dem xoolal boppam su jaree laal mu laalal boppam day jëfandikoo ayab suñu borom bi ñuy wax ne suñu la indilee ab xabaar ku ne di xibaar jógala sa bopp dem ba xam la ñuy wax fam fa nekk noona la waaw wala déet in jaakum yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi nabain fa tabayyanu tabayyun mooy laaj ki laaj ki laaj kaa waaye am na ñeneen ñu jàng fa tasabatu demal ba dañ ca kumpa ne ca ñooña dañewoon kumpa ñenn ñi dañ dañ leen ci kumpa di wax ñenn ñi dañu ci kumpa waaye demal ba su dee lu ñuy laal la nga xam ne daa ñagas wala daa nooy wala tàng na wala sedd na waaye nee na ki xekk ma nekk ci moom dëgg dëgg mooy koo xam ne ku woyof bopp lay doon woyof bopp nag waxuma ab doof dama yàlla baal ci baat bi waaye mooy koo xam ne daal suñ ko wanee loo xam ne gisu ko woon du def na jàngalekat yu jëkk yi daan def am na ñu daan jàngale ci leen ne ci ay réew yoo xam ne xeeb guñ ñu xeeb nit ku ñuul taxoon na eh, ayab alxuraan bu daanoo azim day juum na la alim la nga ne ko déet nañ ko seete ci alxuraan buñ ko seetee ba muy azim da waxoon danaan la maa ko ci dama la doon seetlu kooku kenn ne kooku kenn mënu ko labir day dem ba gis azim da nga ko waxoon waaye du la tàpp tàppal ne la jàmbaar nga waaye danaan maa ko ci jublu dama la doon seetlu ba xam te seetlu wu la da nanguta daanu rek moo tax xek ma nekk ci moom dëgg dëgg mooy buñ koy buñ ko wanee loo xam ne gisu ko woon du ca dëgër bopp day wàññi ko ànd ak ña ko ko wan te fekk bu fekkee ña ko wax lu wér lañ ko wan waaye du jaamu bakkanam nuur ca njuumteem loolee ak gis-gisam boobee ni ki ma wax léegi def ndax kat yoon yi wa ca gën bu ca ku xekk ma nekkee ci moom mooy suy dox di dox ba yàgg mu taseeg nit ne ko waaw fii yoonu fu mu doon mu wax ko dëkk bokkut ak ba mu ba mu jëmoon la gën mooy mu gaaw waññiku bala moo gën a sonn ci dox bi te du ak ci dëkk ba mu jëmoon waaye bokk yi ci suñ jamono am na si ñoo xam ne fañ nekk moo tax wala kañ doon moo tax dinañ dem ba xam ne lii mooy dëgg waaye du leen tax a dëpp xawma lu tax lu tax duñ dëpp waaye bu fekkee fu nit nekk la moo war a gën a gaaw a dëpp ndax su dëpput lu bari mën naa yàqu ndax ku yore ci biir ab boos bus nangami nit te xamut fu mu leen jëme waaye waaye su tasee di talax talaxe ba tase rek aw nit mu ne ko yoon yu dëkk ba nga jëm te ma wàññi ko bala moo réer réeraale nit ñi ci des waaye am na si ñooñ fañ nekk wala lañ doon tax na duñ wàññiku mukk dañuy dem ba yoon wa yeex ñu tëccat ci àll bi yan ñu jàll musal waaye bokk na ci ku xekk ma nekk ci moom noo koy xame mooy koo xam ne seetut lu keneen di def cib safaan waaye lu keneen di def ci lu baax dong lay xool moom la nangu ku koy wax lam fa mu koy teg mooy day xam ne ñi yàlla musal ci def lu dul noona yonent yi lañ ko tuddagun ak malaayika yi waaye ñi ci des ñépp dañoo war di juum di jéggalu sunu borom kon bokk na ci ku xekk ma nekk ci moom luñ ko wax ci nit ci safaan du ko jàpp du ko nangu déglu sax lu baax lu ñu ko cee wax dong lay nangoo dégg waaye bokk na ci ku xekk ma nekk ci moom it noo koy xamee mooy ku ko sut mën la njool mi ku ko sut mën la yawe njool mi ndax nit ku ñu daana léebu ne ku ne ñi ñëpp ñoo tolloo ñii dañoo ñëpp tolloo kenn sutut sama moroom nee na njool maa la neexut rek waaye lu yàlla yàlla ci wuute gi mu wuuteeg liggéeyub yàlla ni wuteeg liggéeyub keneen ñëpp yëmuñu tollookuñ yemuñu tolloowuñ nuroowuñ loolu ak wuuteem lay lay wane lay gën a wone ak ñi ñu ko ñi ñu koy dandaleel bokk yi tey bu mbooloo moo xamoo nekk ci am néeg ku ne di wax waxuma ngay xàmmee kàddu ya waaye bu ñu kat ñu àdduwul sax kenn waxutit te ñuy ree kese mën ngaa xàmmee ree ya noonu la yàlla wuutalee sakkantuma ñu jóg di dox di dem bu ñu bokkoon lépp ci ay waajur it bokk fenn fu ñu yaroo it bu ñu jëfee léeg-léeg nga xam seen ak wuute noonu la ko yàlla bëggee loolu it faaw nit ki nangul ko moroomam ku ko sut la njool tey xool rek wat yiw nekk waaye bokk na ci ku xekk ma nekk ci moom ku ko defal njekk njekk ak lu mu mën a doon du ko nëbb dana la ko sant ba nga xam ne kii sant na ci njëkk la nga ko defaloon waaye sëñ bu mag bi nee woon gàttum xel te moo ñàkk ma mu ngi tàmbalee yam ci lu la waaye defal nga dama ko yaayoo rek ne xiim fekk daa am ku ñëwoon diis ko yitte mu def ca la man kooku ñëw ne ko maa ngi sant mu delluwaat ca biir joxaat ko mu ne maa ngi dollee gën a sant mu jugaat sëñ Masamba lañu wax moo ko ne jógal li fee yaa ngi wax baat boobu muy ñëw ko dikk muy dem ak dikk ba mu ñëwee na anam ñu ne ko jóg na mu ne ku sant day ci njëkk lu ñu defal sant daa jaadu na ci yàlla moo ne la in shakartum wa in wa in taazana rabbukum dan na ko sant azidannakum gi ñu koy sant jëriñu ko dara waaye da koy jox lay wam la dollee daan na gàtt xel mi ngi tàmbalee yam ci lu la waaye defal nga ne xiit na dama ko yaay ko rek dal na lu bari ci suñuy sunum réew fi mu toll nii xàmmee ku defal ku la defal njëkk ak ku ko sëñ ta ban sëñ bañ xàmmee wuñ ko nit day defal njëkk loo xam ne ma woon na koo ñàkk def nga ne ah da ko war a def rek ndax maay ndax ndax maay na da ko war a def ndax ma bàyyi ma bokk da ko war def maay ab sëriñam war na koo def rek yam ca du sant mukk duñ sant mukk noonu it la bu ko nit tooñee ba mu fayu xamuñu ko fayu xamuñu ko tooñ duñ laaj lu mu jot moom dañ naan fayu na rek ma woon na koo jéggal loolu it bokkut ci xekma bu nit ki di dund waaye fi mu koy tëjee nag lu bari la waaye ki am xikma dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne moom daa fag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gaayam teg ca kaw di leen xool di leen roy lu ci nekk mu ne am na lu ñu ca defoon su boobaa njuumteem du feeñ mukk ci àdduna du mas a juum sax ndax nii lañ ma ko diggale woon nii laa ko defee kenn du ci juum yal na nu yàlla defal xikma ci suñuy jëf suñu jëflante kenn du tàggoog yow te du bëgg a gisawaat ak yow kenn du la miin bëgg a tàggoog yow léeg-léeg nga fekk dëj boo xam ne bii kenn du ne sa morom noppil boo dégg boo fekkee dëj boo xam ne am na ñu naan noppi leen rek am na ñoo xam ne yëguñu ci kafaatu dara waaye dëj boo xam ne kenn du ne sa morom noppil jooyuñu dee ci boppam waaye ka dem. moom lay suñu borom joxoon ma ci jëflanteem ci xam-xamam ci ay waxam ci xam njëkkam ci xamam saa bu ñu ko ni fii di yoon wa ak ku ko mën a wax mu daal di gaaw dëpp loolu nag ak woyafa nga ca ak nawloonte sa digganteeg sa morome jàmm ma nga ca ndax ki xamut bay laaj moom wër tax amutut sañ-sañu di xeet ka laaj ba mu di ko wax ba bu ne ko fii bokkut ak yoon wi jëm barab sàngam mu taañaañal ndax suñ bu mag bi muy firi wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fa tafaraqa bikum dafa rëdd ki suuf la mel ni ak garab gu gudd goo xam ne li tàmbalee fi peer bi saxe but bi ak fa wànqaase tàmbalee ku ko bëggoon a ñal gu boroom kastan ngay doon te mën a yéeg lool waaye da nga da ñal gu ba son door ca àgg mu def wanqaase wànqaas bu na jëm fenn mu teg loxoom ci fii garab gi tàmbalee ne suñu borom dafa wax ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu ba fa wànqaas yi tàmbalee mu ne wala tattabiu subula daal di tasaare waaraam yi ba waaraam bu na jëm fenn ci wànqaas mu ne siraatul mustaqim bokkut ak yoon wu jógee fii jëm dëkk sàngam siraatul mustaqim nañ cay tegee mooy jëfe ay ndigal bàyyi ay tere ku ca nekk yaa ngi siraatul mustaqim waaye subul yii nag fi muy jëmi nit mooy fuy fii rek fuy fii mooy koo gis topp ko loo dégg gëm ko xamoo ca kan koy jële wóorut fuy fii rek moo ciy mujj yàlla nu yàlla defal barke ba suñuy jëf mu néew mu bari yàlla na ànd ak xikma suñuy wax mu néew mu bari ñun ñépp yàlla na ànd ak xikma suñu jëflante suñu diggante ak suñu borom yàlla na ànd ak xikma suñu jëflante suñu diggante ak suñuy moromi jaamet <coughs> yàlla na kenn ku nekk yëg boppam ci suñu jëflante ak moom ci lu baax yaxfirullahu lana ولكم ولسائر المسلمين آمين yéen a ko doon laaj yegg si na TQG Touba Quincaillerie Générale ñu gën ko xam ràññee ko lool ci njaayu matérielu quincaillerie de qualité egsi na Kër Massar showroom bu mag ca Kër Massar showroom bu mag a mag a mag a mag ca Kër Massar lii lu rëy la lu doomu réew mi def ca Kër Massar soxlaatu leen dem ba Dakar pour outil matérielu quincaillerie yu baax TQG Touba Quincaillerie général Kër Massar yéen la fi nekkal lépp lu ngeen soxla am na fi toiture sanitaire décoration intérieure serrure de qualité matériel de travail et d'ouvrage am na fa di ci woo waa Kër Mbay Fall waa Jaxaay waa Tiwaawan Pël waa Fass Mbaaw waa Kër Njaayloo waa Tëngéej bu kenn demati Dakar di wuti matériel u quincaillerie Touba quincaillerie générale egsi na Kër Massar du yéen a ko doon laaj li ngeen bëgg rek ci la ñu dox lii daal seen yëf la yéen waa Kër Massar ku ci bëgg lu la leer wooteel ci 33 879 28 28 wala 78 206 88 88 Touba Quincaillerie Générale notre force la qualité ngir bëgg jege ay clientam digital store yaatal na bu baax a baax réseau am teg ci nag ubbi na showroom bu bees tax te Colobane immeuble CMS jàkkaarloo caserne Samba Diéry Diallo digital store indi na leen ay xeetu produits ménagé ay téléphone haute qualité yu mucc ayib et matériel informatique yi xew ci jamono. Digital Store mooy représentant exclusif bi fii ci réew mi marque bii di marque Crosscall tey defar téléphone portable yu dëgër yi ngeen di dégg yu ndox mënulul dara di ci gën a neexati mooy que téléphone yooyu dañ leen di garantir ñetti at ba juróomi at Digital Store am na service après vente ci Colobane buy liggéey vingt 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ak équipe mobile bu xarañ bu jàmbaare buy dem nag fépp ci Sénégal service après-vente boobule day am ak yéen ay contrat d'entretien di leen di gunge ci seeni montage seeni réparation wala entretien appareil bu mu mën di nekk Digital Store votre partenaire de référence téléphone bi moo di 33 842 61 38 site web www.digitalstore.sn boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo